bañ a e, na sax nag waaye ñi yàlla dogal e, nañ ko bëggee woon demewuñu yàlla defal leen courage ñu bañ a découragé ñoom it continuer xaar seen wërsëg ndax ku nekk sa wërsëg waxtu wu muy ñëw rek lay ñëw yàlla na yàlla may ñooñu xol muñ te defal leen jàmm yoom ñëpp ci barke Seydina Muhammad yàlla na yàlla sàmmal ñu sunu diine sunu ngor sunu bopp jubal sunuy njiit teg leen ci saraatal mustaqim def ci ñoom jub maandu ragal yàlla ak yërmande def ci njaboot gi jub ak jubal ak juboo ak fonk kilifa ak dégg ndigal yàlla jële fi feebar bi ak ci àdduna bi yépp nag te lépp lu ci waay laxas ci pexe yàlla leen na sax ka koy fexe yàlla na ko yàlla jaaxal ba dootu tal la muy fexe ci barke Seydina Muhammad yàlla na yàlla barkal sunu nawet bi lu ci ñor yàlla nañ ko murloo lu des ci tawit yàlla nay doon luy ñaatal suñuy tool ba ñu yàq suñu alal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yërëmal ñu suñuy néew xare leen àjjana yéeg leen ci barzax Seydina Muhammad seen bàmmeel yàlla doon xarukaay àjjana ñu nekkoon ci waxtaan weeru safar muy weeru tawxiid tawxiid mooy ifraadullahi fil ibaada wéetal yàlla ci jaamu ko yàlla lim digle li ci gën a te ëpp ci priorité mooy tawxid yàlla lim tere li ci gën a te ëpp ci priorité mooy shirk moo tax mu ni wa laqad baatna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wa yajtanibu taaxut yàlla nee na yonent yi fi musa seen message ñaar moom ñoo ko bokk min la dun ila sayidina muhammad sallallahu alayhi nee na message yépp la ca ñëw nee na lenn ñoo ko bokk mooy jaamu leen yàlla wéetal ko ñaareel bi mooy moytu leen lépp lu mën a dox seen diggante ak seen borom yàlla nee message yi mu mos a yónni yépp nee na bi weesuwul loolu waaw kon muy lan tawxiid wa ijtinaaba shirk waaw fexe boof sax ci tawxiid te bàyyi shirk waaw wa in tusihum sayyi'atun yattayaru bi Muusaa woon maahu nee na banu Israël li ñu daan def bu leen musiba dalee yoo xam ngelaw ñëw na màbb seen yëf wala safara ñëw na lakk seen yëf wala toog nañu bi yàgg feebar ñëw jaxase leen wala toog ba ci yàgg benn euh, ndox ñëw euh, waame mi yàq seen alal neena lu ñuy wax nee na naan ah Moussa mii daal moo gaam yi ñu ànd seen yàlla ji moo ñu yóbbi lii yëpp maanaam waaw loolu ak Côte d'Ivoire am na jamono yu ñu tuwaat wax naan jullit yi fi indi coo coo coono bi fi nekk récession économique bi fi am jullit yi la waaw mu mel noonu la yàlla dox nee na ñoom bu ñu daan am problème dañ naan lépp ak jullit yi ñooñu um waaw lépp ak Moussa ak ñi mu àndal ñooñu um yàlla nee na ala innama taa'iruhum inda yàlla nee na li leen um nag xamuñu nu demee demewul noonu de li leen um dëgg-dëgg yàlla nee na mooy ñàkk déggal yàlla gi ñu ñàkk déggal yàlla te yàlla bëgg ñu delloo si seen xel bala ñu koo deewaale dem safara waaw walakin aksarahum laa ya'lamuun yàlla nee na mais xamee wuñ ko nag waaw yàlla buy teg nit nattu ci kaw suuf pour mu delloo si xelam la ba bañ a deewaale bàkkaar bi ko ko yóbbee di dem safara noonu la noonu sax la jullit di gise coono àdduna coono yi lay yàlla teg ci kaw suuf mooy may la occasion boo ressaisir dellu xel ci yàlla xool sa sa sa sa passé yi nga ci def nga tuub ko ba bañ koo deewaale moom lay coono yi àdduna di jariñ jullit waaw saa boo amee problème ne waaw man maanaam dama def yàlla dara maanaam dama nangam nangam xoolaat sa passé que loolu lañ ci nga nga tuub defaruwaat li nga dëgmal nga jekk jekkastiku loolu la coono yi coono di jariñ jullit yàlla neen su may teg jullit coono pour may ko occasion boobu la mu ressaisir wu defaruwaat tuub ginnaawam defar kanamam ba bañ a deewaale bàkkaat loolu lay jariñ nee na waaye ñoom bu leen dalee au lieu ñu jariñoo ko loolu mais dañ naan Moussa ak ñi mu àndal ñooñu ëpp waaw yàlla ne déedéet si ko seen kumte kay ci ñàkk déggal yàlla takkat ñàkk déggal yàlla googu duma yim leen ci duma yépp seen seen sens la waaw kon nañu dellu si suñu xalaat ci mag ñi mag ñi tawxid lañu fi indil moo tax safar nañ ko def weeru tawxid gën a defaraat pas-pas yi ba mu wér mag ngi dañu teg ci yoon woo xam ne suñ ci jaaree rek alhamdulilah lépp dina jaar yoon Ahmed Tidiane aw Oustaz dafa ma netti loo am solo loo xam ni dañ ko war de wax ndaw ñi ñuy muy suñ référence nee na Seex Sidi Hajj dafa am ci jamono nee mu ànd ak sëñ Babacar si ak njaboot gi di dem tool nee bi muy dem tool nee Euh, jéggi tali bi benn borom oto romb leen nee kooku sax ministre la ca jamono yooyu nee na mu taxaw oto bi woo ko daal euh, ni sëriñ bi sëriñ si sëriñ bi Seex Sidi Hajji Maalik gesu ko mu wàcc oto bi su ànd ak mu sol nga xam lu seer lay jar ak costume bi di xuus ci xaxam bi di leen daw di leen dabi di leen daw di leen daw ba ñëw ba dab leen ni sëriñ bi Cheikh Sidi Hadj Malick soo a geesu mu ne ko ñaan dong laa bëgg nga defal ma ko de Cheikh Sidi Hadj Malick geesu ko ni ko tëf waaye ji xool génn benn enveloppe jox ko Cheikh Sidi Hadj Malick Cheikh Sidi Hadj Malick bi waa ji dem ba waa dem ba gisatuñ ko mu daal di taxaw saret daal di wax jaboot gi ni leen waaw kii ñëw fi sànq bàyyi fi nii oto bee mu gaare fee mën na jënd ñaar fukki lii ñu war wala lu ko oto boobu ku ko jaayoon di ci jënd téeméeri sareet ak fas mën leen bi ci des yëre yi mu sol bi muy ñëw boo demoon mètre bala la muy jar maanaam moo ëpp ñun ñëpp li valeur lu ñu sol maître bi rek mu ni leen ak loolu yépp ma ko fa bàyyi di ñu topp lan lay wut si ci ñun teflit teflit waaw loolu yépp gisatu ko mais suñu teflit lay ñëw di wut si jël lu toy nii jënde ko suñu teflit li tax nag suñu teflit jar jar lii bu ñu ko fàtte te mooy yàlla allahu akbar moo tax loolu war nañ koy nekk nitu diine yëpp bañu ñàkk fayda bañu doye bi li tax suñu tifli di jar lii waaye ki ci kaw la borom mbaar bi la bàyyi ko xel doo nga tax suñu tifli di jar loolu waaye bu ñu sàgganee ba bàyyituñu xel yàlla noonu mu ñuy def ñu ñoo koy def waaw noonu mu ñu def di xuus di daw ñun ñoo koy def moo tax loolu lu mat a bàyyi xel lu mat di nit njaboot gi ñu gën a dal xel xam ni nag ku yor borom bi subhanahu wa taala ku ànd ak yàlla seen bi maanaam yow wéetoo too mënatoo xool kenn moo tax nañu delluwaat suñu xel te delluwaat ci njàngale mag ñi te njàngale mag ñi nag la ñu bind waxuma li ngay wax ci tànt yi bëgg dërëm mais la mag ñi bind tax saxal ko te daa ko dund te mu wér loolu nañ ci dellu buñ ci delloo rek suñu lépp suñu àdduna jag suñu alaaxira jag yal nañu ko yàlla yal nañu ko yàlla dimbali te dimbali ci njaboot gi ndax fi nekk ñi réeralaate dañoo bare bare bare ba nga xam ni maara day taal li may wax ni ñett ñii ñoo ñu jël en otage waaw al ulama al ghaafilun borom xam-xam yi nga xam ne seen bakkee ne leen jiital ñoom lu ñu dund rek la wut lu ñu lu ñu lekk rek la ñuy wut euh, ñi ci des mooy al mutasawwifuun al jaahiluun gaa ñi woote yàlla te jànguñu xaala wala kasiran boo leen laajoon sa seen farata yi julli xamuñu ko te bu gëm loolu ni ñoog yàllaay fanaan ndax jàng nañu ak njibar ba mën laa woon ay kéemaan yoo xam ne doo ko ma doo boo boo boo dëgërul doo a wen waaw ay ak njibar la ñu jàngi dina ci woon ay kéemaan dina wan ni ci yàlla lu jóge fekk iblis moo leen ko moo leen ko jox yow xamoo mënoo ko xàmmee waaw bu ko defee ñooñu pour détourner la dafay yomb li ci des alfuqaraaw mu daahinun ñi ëpp dañoo ñàkk ñàkk googu nag lan leen yóbbi mooy bëgg lu yomb waaw bëgg lu yomb lu loo indi lu mu gën a yomb rek foofa la moo tax ñett ñi ñu jël en otage Sénégal yàqu ko waaw borom xam-xam yu topp seen bakket ñiy jaay yàlla te dara. seytaane lañu ñu àndal ñi ci des mooy ñu ñàkk nañu xamuñu yàlla te ñàkk nañu lu ñu am jël ñi ñoo yàq Sénégal yàlla nañu ci yàlla musal salaamaaleykum wa